xamuñu la kon xam yow man maay Mouhamadou Bay di secrétaire général cellule Centenaire Gibraltar champ de course donc ne woon ne rek nu ñu ñëw def ben doxantu pour euh, vraiment sensibiliser nit ñi wax leen né nañu dem jëli sen carte bu fekkee ne jëluñu carte nañ dem vote ji aussi jour vote bi aussi ñu mëna contrôler le vote pour que ñu mëna sortir victorieux de cette élection présidentielle. Qui euh, euh, bi génn na préfet bi. wax na na souffrance. Mhm. est-ce que li ci ëpp ay lañu. la plupart ci yeen lañu lañu lañu lañu. waaw bo xolé euh, yi nañu primo primo votants carte ñun liggéey di toujours loolu moom dafa pour voté wala ñu ngi nekk ci atu voté dem jëli seen carte pour mën a voté yi loolu moom liggéey boobu duñ si mës a dañ si loolu la ñuy nekk pour que parce que xam nañ ne jeunes yi nga xamante ni c'est des jeunes ñoo xamante ni instant bi nii xam nañ ne euh, dañu war a voté dañu war a commencé voté généralement ñoom opposition bi la ñuy voté ñun loolu on est conscient ñu ngi ciy travaillé travail boo xamante ni bu mucc ayib la macha allah depuis quelque temps yàgg na sax mais dañ ci gën a insister si fan yi nga xamante ni moom la et on sait que l'OLU mën faire euh, changer la balance. Vous présenté wu. waaw asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu yeen ñep euh, man la Cheikh Tidiane Gueye di vice coordonnateur passef Medina, en même temps responsable passef centenaire Gibraltar champ de course tey nag li waralon ndaje bi moy ñun ñoo woté au niveau de centenaire Gibraltar pour battre campagne pour la coalition Diomaye président 2024. Nous sommes la population Médina bi Nous ñu voté la coalition et président parce que c'est le meilleur candidat parmi les 19 candidats c'est le candidat qui prend le changement donc nous avons nañu taxaw thème le soir du 24 mars nous avons une victoire dès le premier tour avec 70 Voilà. Euh, voilà. nan ngeen organisé pour euh, pour campagne électorale bi xam nañ campagne 15 jours longs, 10 jours longs, 15 jours la De euh, euh, pratiquement moitié bi nan ngeen organisé e. selon des ASC. Nous avons ASC bu nekk dañ ko jox jour moo waral samedi ñu ñëw centenaire Gibraltar pour jouer sur nos partitions. donc pratiquement y nañ 6 ASC il ne reste que 4 ASC donc nous euh, Déggo euh, centenaire Gibraltar ak Yeren ASC. voilà nous quoi mais chaque mercredi et dimanche nous allons rejoindre la caravane du département.

surtout côté centenaire euh, champ de course avec Gibraltar mobiliser les pour sensibiliser les si euh, programme sur Bassirou Diomaye pour la coalition euh, Diomaye voilà. Nous organisons organisé pour pour campagne électorale Nous nous organisons, organisé on fait des porte à porte porte à porte nous avons un lot de 20 personnes Nous nous saafantoog nit ñi expliquer leen programme bi jox leen ay spécimen noonu la ñuy noonu la ñuy def. ban accueil la la population yi recevoir. Euh, vraiment accueil boo xam ne am na ñoo xam ne dañu yëkkati seen xaalis sax di ko jox pour organisation vraiment accueil bi ñu nii kenn mësu koo gis macha allah macha allah. à vous entendre vous êtes très optimiste. on est très optimiste incha allah on gagnera au premier tour. incha euh, dañuy wax ne am na carte électeur yu bëri yu nekk en souffrance. Mhm. Euh, lan ngay wax lan ngay wax. li ñuy demander jeunes yi mooy na ñëpp dem au niveau de leur euh, truc préfecture yi seen lieu de kii pour récupérer les les les cartes électeurs voilà. xam nga def élection ci moment corps de mémoire. ñinga fatali ko ñu bari bëri wuñu légui campagne bi ci koor gi nan nga ko gisé campagne bi ci koor gi pourtant doo ko yëg parce que tu as plus de temps le matin. doo gérer añ da ngay xëy dugg si dëkk bi sensibiliser donc euh, je pense que amul benn problème jàmm rek lañ si gis te c' est un signe vraiment c' est un signe très positif. annonciateur organe ah. donc c' est un signe annonciateur. Ah, voilà c' est ça c' est un signe annonciateur lu musul am mu am si génération bi pour Diomaye Bassirou Diomaye donc ça veut tout dire ça veut tout dire. lan ngay wax euh, ñi dëkk Gibraltar centenaire pour le 24. ñu dëkk par rapport à la paix. centenaire Gibraltar ñi ngi leen di woo di leen ñaan le 24 bu ñu rek na ñëpp a dem si bureau de vote yi voté ñu ndogu jubilé voilà merci beaucoup nekk euh, un vieillard troisième âge mais pare ànd ak Sonko ak Diomaye pour ñu libérer Sénégal parce que loolu moom mooy xeex bi ñun peut-être suñu âge passé na mais xale yi la ñu bëgg a parce que li xew ci réew mi kenn mënu ko expliquer donc nag loolu dañ ko bëgg a yeggale sénégalais yëpp ñun tey a ah, suñuy jaar-jaar moo doon xeex ba démocratie am <coughs> tey yéen koy yeggali yéen en tant que jeune lu mel ni ñoom Sonko ñooñ jomaay tey am nañu yaakaar bu mag ci ñoom <coughs> daf ñuy fàttali rek histoire u Sénégal tey suñu wax Souleymane Baal lu mel nii moo tax ñu xam ko Thierno Souleymane Baal suñuy wax ku mel ni El Omar wala suñu mag yu bax yi lu melni say taxaway yu melni lañu amone pour que Sénégal continue am dignité am mo moo suñuy wax ku melni ni Samori Touré Samori dama wax ni que Sonko jël na lu bari ci Samori Sonko jël na lu bari ci Samori Touré dañuy wax ni le plus grand résistant africain moo doon Samori Touré donc nak dañu am nañ yaakaar bu mag ni dañ ñom dañu jóg pour ñu libérer Sénégal libérer Afrique yaakaar bobu nak warul tas mom

loolu moom moo am solo donc ñun dañuy sant yàlla ba yàlla may ñu ñu fekkee lu mel nii suñuy doom taxaw ne ñoom dañuy faj gàcce jërëjëf yàlla na yàlla sàmm. waaw. Ah. Kolda man la Kumba Ndofène Diouf bu may woowee Ndofène dëkk ci Kolda. man bu tey bi. ah xanaa bëgg tey xanaa bëgg dëkk bi dëkk bi changé xalaat nañ ko c'est moom lañ. moom lañ am moom lañ am yaakaar si Ousmane Sonko ak Diomaye Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko waaw vraiment de vraiment de vraiment de at yi fi toog yëpp ak ñi fi mos a jàll yëpp man bokk suma gis lu mel nii àndoon naa fekk Ablaye Wade mais suma gis lu mel nii waaye Ablaye Wade ñoo ko doon campagne al ñoo ko doon defal lépp mais mais kii bu mel nii gis mosuñu ko gis koo xam ni luy problème mu dëkk bi ci la mi ngi si Sonko moom vraiment dafa fàtte problème am dafa fàtte problème kii problème bi kii parce que mais ñun presque jeexal na mais ñun ñi mais ñun suñu doom yi moom moo tax ñuy def lii yëpp waaye sa bëgg na sa Sénégal li mu am lépp vraiment Sénégal dafa war a neex ok euh, ñu jëm ci élection le 24. Ah. lan ngay wax population Gibraltar centenaire population Gibraltar ku ci yeewu vote na toog foofu sécuriser votam se ñi ñi jëliwul seen carte d'identité nañ jëli seen carte parce que lii tamit c'est c'est bien boo mais wante nañ nit ñi jël seen carte d'identité ñëw ñëw voté parce que dégg naa carte d'identité yi ñu ngi si commissariat yi ñu ngi si kii damay wax ne ñëpp nañ jëli seen carte d'identité ñëw message boobu daal laay jox ok ok